ñaari jërëjëf mbokk yi ñu seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyooti nañ leen am kontaan ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ne ñu ngi fii ci stade Diop bu Bakaaw ki ñu fi woo doon xale boo xamante ni kenn du ko présenté ci làmb muy jam production diggante jàkkaarloo bi nga xamante ne moo dox ci diggante lekkat Baara ak France. mu doon combat boo xamante ni mbokk yi gis ngeen lépp loo xamante ni déplacé wu nañ ko mu jaral ñu ñu jóge Parcelles Assainies jaral ñu ñu jóge Sénégal ànd ak les présidents des jeunes amateurs ànd ak suñu grand frère Fallou Ndiaye borom Ndiaye production ànd ak ñu bëree bëri ñoo xamante ni vraiment dañoo ñëw ngir ànd ak jamaïcain taaral bis bi ñaari mbër yaa ngi noonu nag dinañ laale léegi du yàgg mbokk yi su ko defee ñu dégtal leen lépp loo xamante ne xew na fi ci ambiance en tout cas daal làmb tuxu si ñëw Gambie kaay ñu xool Momo Ngom a ngi noonu mooy bëtër bi ndeysaan Momo Ngom sëñ Bas Momo Ngom ndeysaan malien lu lii da xanaa mosoo leen koo gis ci làmb paan bi ki kay lekk yërëm naa ko yow jàmm mosoo daan luur dama léegi mosoo daan luur amoo doole daw kat nga ragal nga ah, ah waaw leer avant ah, ngay bëreel dama lay noqu daal la mu ne ko avant ah, ngay bëreel dama lay ñuul xol ma baax la eh xol ma baax daw kat nga ragal nga avant ngay bëreel daw kat nga xol ma baax amoo fit daw kat nga ay ca dama lay nokk daan yow. signature bi daal. mbër lan moo xew. non lamb la rek. dafa mel ni da ngeen a xiifan. non waaw lamb la. lépp si saa lépp dina si saa lépp na leer incha allah lépp na leer. man de daa mel ni Ama Baldé bi ma gis nii Ama Baldé bu wax xat. non yàlla baax na li si saa lépp na leer saa yàlla baax na lépp na leer yàlla baax na. lan nga ko wax. woo ma ko dara ma ka dee rek dama ka dee. maa fekk wax ma lu ko neex saaga na ma lu nekk wax na ma may muñ ñëpp ñu ngi may gis waxuma defuma dara maa ngi noppi di ko xool. lan nga ko. waxuma ko dama ko ne maa la mën maa la ëpp doole loolu la nanguwul. tii dañ ñoo boole combat mu daw. combat bi ko dëgg koo xem. mu ngi sama kër moom mi. yéen a dañoo waroon a bëre mu daw lamb jo ñëwul. looloo ñu boolewaat tapet la. Malien Ama Balde. daa mel ni fi mu toll nii. Euh, Gambie kenn mënul toog kenn mënul taxaw ndax yéen ñaar. waaw loolu la yàlla dogal ay xale lañ nag ñu sant yàlla si loolu bu baax a baax. ndax combat bi dañ ko respecté. ndax dafa am si luñ jógee lu metti waaw kon nag combat bi dañ ko waaw di loolu laa foofu laa yem daal ba bési làmb ja incha allah. dafa sedd mais Malien yaa ngi ñaq. waaw dama am entraînement rek. jërëjëf xool ko ñaqul deful dara. maa ngi tooy xepp ku ma ngi xam ne dama entraînement dama sonn ci combat bi. Aïcha Nanga. noo tudd. man artiste laa tudd. artiste club Nungu Kebe. Nungu Kebe club Nungu Kebe artiste. ndeysaan waaw. Mhm. Euh, nga war a bëre ndink nanka le 28. la loolu. waaw ah, waaw di woo sama fans yi ñëw rek nga xam ne du mën a ndink nanka dama fu ma teg sama bët fii si laa mujj fi yéen après si kanam léegi a di comprendre. waaye. da nar a xeex moom. kii dama koy jàpp tànkoo dem ñibbi. kii kii kii du ma teg si làmb ji. ndink am na doole de. man ndink nanka laa dëkkal man. mun ki naan laa dëkkër kii du ma la moom du man ak moom fu ma jaar fu ma jaay day tax man. turandoom de garaaw na ni nga ko naan. déggoo lu ma la ni nga ko laa laa dëkkër ni nga ko naan mooy sama boos man ni nga ko naan mooy sama boos moom laa dëkkër man kon du ma la kii yéen. loolu garaaw barki kii su ma ko téye du goyee. yàggatul. yàggatul. mbër. mbër maa ngi lay nuyu. la. Téemas la koy wax. Téemas volume waaw volume bu ëpp temps. laale ngeen yéen ñaar de bu ma xante ngeen de. waaw laale nañ xam naa day peese fi mu toll rek fi ma tol si moom rek. waaw daa jël baa mais dama tiit jëlewu ko xel mu dal loolu moo tax. waaw. ndax lan dafa jàpp ni yaa ko ëpp doole wala loolu lépp si man la nekk. te bu at bi suulee bu at bi ne pib dama koy woon jàll. kii taxu moo jog bañ a toog moo tax mu jël ko rek. di nga xeex ak moom. loolu moo yàq affaire yi li mu doonul xeex. moo yàq affaire yi bu doonul xeex dama koy wuli ba ay mbokkam jël si ko. wër na yàlla. kon simple ngeen koy yàgg na bu bëggee léegi léegi li des si reliquat bi ñu suñu ko fii nii def ko xeex barki alxuraan karim barki Seydina Mohamed. jaaxal la da ngay waaw koy bëre. Reug Reug. noo tudd. noo tudd. Lion Noir. Lion Noir. Eh, Lion indi man jaaxal na ma. waaw dañoo nekk ay xale nekk si koñ bi rek jox ñëpp cër. waaw. ku ñu mat papa ñu jox ko cëru papa ku ñu mat yaay ñu jox ko cëru yaay ku ñu mat rak ñu jox ko cëru rak ku ñu mat mag ñu jox ko cëru ku ñu mat nijaay ñu jox ko nijaay loolu dong la mais du leneen. bis ba loo fas yéene wane. ah dañuy ñaan yàlla mi nga xam ne dara teewu ko rek mu may ñu ndam comme jël set wit ta gaaw si nu yàlla lool rek lañ koy ñaana ah. mbooloo mi nga indi daal xam naa ne bari na. waaw dañuy jéem rek defagun dara ay xale lañ rek nekk si yoon dañuy ñaan rek waaw. yaa ngi Balla Junior waaw. koy bëreel. Eumeu Sène. kan. Eumeu Sène Eumeu Sène. Eumeu Sène waaw. Eumeu Sène moom ki mu tuddee boppam wex na de. <laughs> maa ko gën a wex fuuf. wër na sëñ Bamba. du mën a yow. yéen ñaa bëre simple lay doo wala bëre doo. simple man nuru naa la koy bëre simple. looloo ma jaaxal. ah. looloo ma jaaxal. boo ma xoolee di nga xam ne man weesu naa bëre simple. yaa nara xeex ak xool ma ba xam rek ndax ñeme naa xeex wala ñeme daal xam naa ne bis bi moom waajal nga ba mu waaj ànd nga ak say sengoor indi nga say lépp indi nga bare euh, nga mystique ba. man maay mbëri bandi yi. ku bandi du la support. waaw oh, man ku bandi du ma support rek. <laughs> leer na laaj. jaajëf mbër. kii gàlla. ama ngay waxal. ama ama tàngal nga ko ba mu tàng ama bal de lii lu mu doon. non dara noonu aar ñu ngi rek. waaw li ma yëgal rek du dara waaw. mais bi est-ce leen jural dara yéen non non dara bu ko laal dafay neexal rek bu jeexee jeex na. ah mais li doon koo xeeb. non moom kay bu mu xeeb dafa mu ëpp waaw. ak doole du benn. waaw moo xëy na moom moo gis loolu mais garaawul làmb la rek. incha na leen incha allah nga xam ne amaaree bi la doomu Ama Baldé kenn du yow. eh ah, mbër. mbër mbër ci loo maa ngi sant yàlla. maa sigil bu baax. sigil bu baax jugal sigil bu baax. ay sigi taxaw. yaa ngi ci maa ngi ci jàmm am nga carte mbër de ndengeñ. noo tudd. Sa Thiès. Sa Thiès waaye. booy laale. booy laale booy booy nawet. ndeysaan. gis ngeen mo ndeysaan Modou Lo kookoy Modou Lo Modou Lo wa ngi noonu ndeysaan xale baa ngi noonu di dugg si ah, sama xol sedd na ndeysaan Ndongo Lo wa ngi noonu moo war a laaleeg Cheikh Tidiane waaye Gàmbi miin na ko <laughs> Modou Lo kàbbal la building a ngi noonu building la building a ngi noonu la ilaha illallah mooy yëngal gësëm làmba ngoog de ndongo loo ngi noonu cowet ja koo koy building ñu bàyyi ko mu tuus teg teg teg teg sant. baa yaa bu baax waaw bu baax. Building dama gis nga dugg si. ma gis ay champion yoo xamante ni Sénégal ñu ngi fa doon ay champion bu ma tuddee ndongoloo rek tënk na lépp mais dama ñëw gis sérieux bu yow bu ci yow gis loo xamante ni da nga ko def muy fonk bis bi loolu lal la. waaw xam nga boo doonee ay ndaw ay ay mag nekk sa ginnaaw boo doonee ay ndaw ay mag nekk sa ginnaaw. di sonn ci yow da ngaa war ci loo nekk nga gëm ko te bis bi lépp lu ci war bañu ma ci dara bañu ma ci dara. booy Balla. waaw mel mi. loolu rek ñëpp nee nañ doy na grand combat. loolu rek affiche bu mag la foo ko yóbbu day fees lan ngeen waaj yéen ñaar. waaw ñun ñaar ay ay tànk leen. combat jànq la du yomb mënta yomb. dañuy bëre. dañuy xeex. waaw noonu la demee. Mame Balla lan la gën a xeex wala bëre. manu dara. dara xeex. man maa ko dàq lépp. dàq bëre. maa ko dàq lépp. ëpp gàllaaj. non gàllaaj moom mën naa moom nga ëpp. ku ëppi mbokk. man man. ku bëgg bis man. yow xanaa lépp yow yaa ko waaw te doon xale dóor mu daanu wala bëre ban nga ci gën a bëgg. na daanu rek man nu mu baax na man victoire moom nu ma ko amee rek baax na bañu ma di sant ñëpp nag di sant samay fans di sant sama waa koñ di sant waa Serekunda mbooloo bu baax ba Banjul Bakaw ba Kasarul ñëpp bàyyiwuma kenn képp kuy bëggee bil rek maa ngi koy sant di ñaan sama papa bu dafa gaañu yàggul. maa ngi koy ñaanal fu mu tëdd gënal ko fu mu jugee di ñaanal sama ñaari waajur fi def yàlla guddal seen fan di nuyu sama mag yëpp di ñaan sama yaay ñu gudd fan lool di nuyu sama papa yi buggee bu mag maa ngi koy ñaanal mu gudd fan di nuyu Baye Murit di nuyu sëñ Basirou Gueye di nuyu ñëpp di nuyu Baye Modou bàyyiwuma kenn waaw di nuyu sama kott yi sama waa Ikiri ñoom saay saay gis nga ñoom nongolo gis nga niñ ma daree sonn ci man te maanaam jaruma ko noonu la demee. adversaire ma a ngi dugg si bot Thiès. Sa euh, koy bëre. Ndialmew. ñaataat nga man Etine. Ah? Etine. loolu moom xam naa ne <laughs> dañ koy bàyyi ak waa Sénégal ñu def ko mais li nga yor lan la. ah dama jox rek. fan nga bëgg a toll ci làmb. bari na. kan nga gën a bëgg ci làmb koy roy. man ku may roy Sa Thiès. doomu waaw. nga koo gis. waaw. benn yoon ñëwoon na fi. góorgóorlu yàlla. mbër noo tudd. man Ninki Nank. nan Ninki waaw. a bëree waaw. artiste nee na la dëkkal moom. nee na Ninki Nank moom la dëkkal mooy mooy ma ko jàppee dina xam ne ni ngi nanga la dëkkal. da garaaw na xaw ma bëre bi. bëre tur bi ni mu garaawee noonu la bëre bi garaawee. loo bu bés ba bayal ba bés ba bu bés ba dina xam di nga xam li ma ko naral bu ma ko jàppee bu taxawee naa ko duma daan ka. maa ko dina garaaw. xale bu ndaw la. mbër noo tudd. volume buy boo daan. nga waaye. waaw lépp ci làmb la rek. ah man gis naa mystique bu bari de. dama soxla combat bi. lu tax ndax dama am fu ma bëgg a dem. te comme gëm naa ne combat bi moom mooy àggale fu ma bëgg dem. xam nga dama nekk booy nekk ci làmb samay morom nekk ci su ma leen laajee ñu ne ma prouver liggéeyal dama leen dama bëgg a liggéey wan ne man dafa am ma tax a jóg te ci kàddu yàlla billaay walaay combat bi su ma ñëwee rek ñu xam ne dama indi mbooloo. dama pare ci côté bu ne yàlla xam na loolu di leen sant bu baax seen xam nga déplacement bi ngeen déplacement ñëw fii xam nga lépp ci làmb rek waaw yal na yàlla dafal jàmm combat bi dama ci pare barki borom Touba kii du maag moom dafa am lu tax ma jël ko te incha allah naa ko wan dinaa ko duma duma yu métti doo koo daan. aventure loo ko naral duma daan. danaa ko duma kii billaa walaay man soxla ma jàpp. nee na bëre bi amul dóor de. man dóor laa waxtaane. moom nee na bëre simple la nee na bu ngeen bëggee ngeen teg seen reliquat. moom la rek man dóor laa waxtaane sama manager waaw. gars yi ma xaalis yi dóor te gëm naa ne dinaa dóor mu nekk mbabat la ci lu mu ordre rek amul problème man danaa ko ci fekk te bu boobaa naa ko daan billahi wallahi taala kii du maag moom dinaa ko duma duma yi métti doo ko daan baax na ba bés ba. mbër tur bi. Bébé Colobane. Bébé. Bébé Colobane. Colobane men. waaw. Dakar Sénégal. du Sénégal de. ah Gambie dafa am waaw. nga nekk bébé soldat anamu. mi ngi toog na le. ñeme ko sax xool bu baax. waaw mu ngi na toog. lu ngeen nar. ah lu ngeen nar yéen ñaar. ñu nar. ñu ñaan yàlla may ma ndam rek. xeex wala ci bëre. no biiru dóor xam ah, nga su nekkoon dóor mu du ko jël. waaw bi mbapal la rek waaw. bii moom dañuy jàpp naxandaa moom daan ko rek incha allah. état de forme bi ma gis nga am ko de moom macha allah bari na ci loo xamante ni boo ko travaillé ci làmb mën ngaa doon champion. waaw ñun ay xale am na ñu bari nañu bàyyi soxla ngir ñun mën a sàng liggéey rek ñu war waaw liggéey rek moo ñu war kii lu ma ko du bari waaw bés ba la ñu xaar incha allah rabi ñaan yàlla mu may ndam waaw. bàyyi nawet la. booy. waaw. gaas. gaas men. waaw. mu mën a xeex. ay. bay mën a bëre. bay nekk nag. moo daa xeex moo bëri rek combat bi lu laaj rek la ñuy def combat bi lu mu laaj loolu la ñuy def waaw di la nuyu bu baax a baax di nuyu ñu fi teew yëpp xam nga di ma sew coono xam nga waaw di bëgg fas yëpp yaa ngi gis waaw. yéen moom seen combat maa koy reporté maa koy waxtaanee ku daan maa lay invité Sénégal ñëw Gambie jël si la ñu ànd dem Sénégal ba wutal la fa combat parce que xam naa ni Malien ak ak ak Ama du yomb. waaw du yomb moom waaw maa ngi nuyu ñëpp di leen sant bu baax a baax waaw di julli si yonent bi di gërëm suma ñaari waajur di sant Baay Abdou Karim Mbàkke borom Makaalim Axlaa suma sëriñ waaw di la nuyu bu baax a baax waaw di nuyu télé bi waa di. wasaare lamb xam nga ko. ah. wasaare lamb xam nga ko. wasaare lamb TV waaw xam naa ko waaw dama koy faral di seetaan si sit internet bi waaw. ne bu ma demee adduna bépp dinañ la waaw loolu moom boo ma ko diggee ma gëm ko. sa seen combat moom xam naa mooy doon sama combat dama koy jël. waaw ko Jamaïcain ànd ceeg moom liggéey ci combat waaw wax yàlla nag combat bi dafa nekk combat boo xam ne askan bi ñoo ko soxla ndax waroon a bëree mu am nu mu demee waaw gars yi boolewaat ñu nag waaw ñu nekk xale yoo xam ni nii waaw ñu nekk suñ ginnaaw bëri na trop waaw moo waral lii yëpp waaw. I am amical. di am amical. the best of the best the gentle giant. The boy from Carnifin South, born at Carnifin South, live at Carnifin South. The man with the lion heart. This is my birthday month, you I born on February 1993 at Carnifin South, Street. I am me, the gentle giant brother man, the man with the lion heart. loolu de moom tënk na xolu gaynde know me very well you know what I mean no mercy for am na ku origin from Fouta Jalon Island the Fula boy Santul Jayan best of the best am nga luy best of the best mooy ndaanaan si biir ndaanaan yi mbër waruloo soxor dama ne ma may ndaanaan si biir ndaanaan yi loolu nga taay best of the best yeah man the man with the lion heart yeah man eh adversaire building na a feesal stadium bi yow mi stadium feesal mbëri nañ waaj bilaay walaay man bëre naa kii suma seere la boo ke naa mbëri ma jënda 21 lu ñu jënd si ticket man kese man lu ma jënd moo billaahi walaay talaay na waaj bés bi fii laa dëkk kaani fi mu si gannaaw fi fii laa juddoo fii laa yaroo fii waaj bu baax a baax di jëntul jayaan mu ngee ñëw scout bi mu xam indi naa scout band yi di kopi ñu war a ñëw dama leen di order from Guinée Bissau ak Bobo Julaasu Burkina Faso la gaay di jógee ayam di jëntul jayaan. <laughs> xaaral ma am na champion bu dugg si. ndeysaan. booy Balla la. ndeysaan. gis naa ay fur wi. ndeysaan signature contrat bi dafa mel ni làmb. ndeysaan am na leket buñ ko sottil sotti nañ ci tànk yi. ndeysaan sotti nañ ko ci bopp ba. benn kook la sukk na. la ilaha illallah. kii de mu ngi mel ni ku war a bëre tey dugg si na kii mooy Boy Balla moo war a bëre building combat Gambie la ay Jamaïcain tëgg nga loo xamoo foo koy waxe jee ay xale bu lu ne moo ci dugg jàpp Boy Balla ngi noonu Boy Balla ngi noonu lii moom daa mujjee mel ni bëre la ndeysaan ay ca demal waaw maa leen nuyu. sant yàlla bu baax. tur bi la. tuddee sa bopp. Ah, waa gis nga. loo jël ci moom. waa jël si moom si lépp. jël si moom si lépp loo xalaat ne mbër da koy jël toomaayam rek. séeréer la moom séeréer la. lébu la moom tamit lébu la. waaw di doon champion bu baax xam nga. waaw man tamit am nga ma gis ko tuddee ko sama bopp mu nekk jàmbaar ma gis lu muy def Sénégal ma ne man tam bay ma ñëw Gambie ma def mission bi muy def Sénégal bay ma ñëw ma doxal dama ñëw doxal mission rek. waaw. Eh, guy bële laay bëreel Lion Noir. Lion Noir. tur bi. non dama ko dama ko bëgg guy gi ko xam nga. guy gi man. guy gi comme comme sama tomaa ko war a bëreel quoi. waaw. Lion rëg-rëg guy gi nga ko bëgg a def. waaw comme rëg-rëg guy gi. waaw ah, moom mu nekk guy gi nga nekk rek. Ah. waaw. loolu gis nga lamb rek. di ko ñaan di waaw di ñaan tamit ma daan ko daan ko si jël bu set wecc ba am benn werante di leen gërëm tamit yéen ñu nekk caméraman yi yéen nekk journaliste di leen ñaanal xam nga ñun ñun yéen nañ am bu taxutoon yéen duñ dem di leen sant bu baax di leen gërëm di leen lépp li ngeen bugg seen kanam si lu baax yéen a ko xam yal ko yàlla may waaw fu seetaane aw yal ngeen awee ni fu jaamu yàlla aw yal ngeen awee noonu ànd ak moom di ñaanal suma yaay bu gën a àdduna barke démb suma yaay bu ndaw yal na ko yàlla xaare ajana di gërëm suma ñu jaay bu baax di baru Sarr di gërëm suma fans yëpp di gërëm tamit Boy Niang di gërëm boo Niang senegal fan yi moo ma nekk ci train Boy Niang mi ngi fi fan yi moo ma nekk maa ngi gërëm bu baax di ko sant mbër noo def. yàlla lu bari. noo tudd. man bu Gambie. Omar Sène bu Gambie. yaa koo war a bëri. Balla bu Gambie yaa. ci lan ngeen nar a bëre xeex bëre wala lan. waaw làmb moo ñu boole ñu ñaar bokkoon nañu ikiri làmb boole ñi dem. ay ca mbër. waaw ci yow laa waa si ma nga yemoon yaa. nga ni noo tudd. Eumeu Sène bu Gambie. Eumeu Sène bu Gambie koo war a laal. Balla bu Gambie. Balla bu Gambie. combat ba nu muy demee. waaw dañ war a bëree ñu ñaar Balla Gaye Eumeu Sène ñoo fi nekk ñu ñoo war a bëree. booy bi ñoo bokkoon ikkiri lamb bu dem di ñu boole ba ñu ñaar ñu war a bëree. man na wax naa ko moo ma laaj man soxla mu ko man ñii si kaw laa soxla dinaa ko wan ne ni Eumeu Sène ne Balla Gaye noonu laa ko man du ma moroom booy bu taxul may jox. loo nar ak moom. lu daan ko maa ko man fuuf fukki ku yu Eumeu Sène dóor Balla Gaye fukki naa ko dóor fukki ku ak juróom maa ko man fuuf ëpp ko doole leexam yu réy mu naan perni loolu du làmb ji man damaa caaxaanewul làmb duuma moroomam loolu moom leer na ay ca kii ragal la du bërekat kii ci bëre yi daan luur yi ñu ko daan jox duñu ay mbër bu mu duggee ci ba léegi ay problème rek ci maa ko man maa ko ëpp doole dama koy duma daan ko ama mi tapé na ragal la gat la. nee na xaw ma koy bëreetil waaye du doon malien wala ku mel ni malien. moom la combat bi sax combat bi bi xam naa ah, ah, bi du neex li tax du neex bilaa du neex daw du taxaw du neex bilaa du neex daw. li ma xam li ma baax yàgg du taxaw day daw nee na buñ la loon fay doon. yow ragal ga yow lañ koy wax yow mi daw combat bi man Ibo Town laa dëkk Ibo Town ragal ragal dëkku Ibo Town. ñu ne ko Ama Ama ngay bëreel xool ma baax Ama ngay bëreel yow xa yow tëjoo fenn xool baax bii ma bii ma sama yi weexul de. xool bu ngeen gisee fii ñu toog nga xam ne ñu ngi ci suñu confrère yi nga xamante ne ñoo bokk liggéey bi ñu nekk fii ci Gambie soxna si turbinal la. man ñu ngi may woowee Fatsa séeréer bu rafet. séeréer bu rafet. waaw gis nañ liggéey bu rafet bi nga xamante ne yaa ngi koy liggéey ci làmb rawatina fii ci Gambia mu am ñaari combat yoo xamante ne bëggoon naa ngeen wax ñu dayo bi nu mu toll lu mel ni Leket Baara ak France combat boobu nan la mel ci Gambie. Euh, di la jaajëfal bu baax a baax di nuyu seen waa site internet bi euh, parce que tur bi. wasaare lamb. Euh, ok wasaare lamb di leen di nuyu lu ko dalee seen management bi si kaw ba ci suuf ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di leen di jaajëfal di am mbégte ak kontaante di leen di dalalaat fii si Gambia si beneen yoon. parce que gis nañ ne ñun tamit bu ñu jógee Gambie dem Sénégal da ngeen ñu dee dalal kon ñun tamit dañ leen di wax ne ngeen dal jàmm si Gambia dina am mbégte a kontaante si wax si combat boobu noonu ci dayo bi nu mu toll. foo ko weesu foo ko natt rek weesu na ko muy digganteeg leket ak France bu caw lu yàgg la du léegi coow bi nga xam ne la France dafa yàgg di laaj ci nga xam ne ni ne mooy leket bu baara euh, bu ñuy xayma comme ni ko France waxee wala ni ko leket waxee bëri woon nañ leket bu baara ne ko man dama laa daan mu ne ko comme dama bëgg nga wone photo yi nga xam ne ni ne mooy contour Modou Lo ak Ama Baldé parce que photo yooyu noonu bi Ama Baldé ak Modou Lo bi ñuy waree signé combat bi ñëpp dañoo wax ne comme que d'accord daan nañu wane photo yi ndem si yàlla Faalaay Baldé moo tegoon combat ba yal na ko yàlla yërëm te xaaree ko àjjana ci bunti këram ñun ñi ñëpp gis photo yi France nee noonu la bëggee ñu génnee photo yi contre moom ak ki nga xam ne mooy Leket bu Baara moom ñii naan 2 la France na 1-1 lay demee parce que moom daanu ko kon bu soobee yàlla combat moom moo koy soxla te moo ko bëgg yàgg-yàgg na bëreeg moom. jamono di jox comme ni nga ko waxee tey ba promoteur yi ko bëggoon ci Gambie bëri nañu lool amaana tey kum ko yàlla jagleel mooy Jamaïcain doomu sénégambien bi moom la ko yàlla jagleel comme tey bu ñuy wax dañuy wax ci cadre journaliste bi ñu nekk di jaajëfal ki nga xam ne mooy Jamaïcain tay boo xoolee public bi dalay leer ne combat ak France ak Leket Bara sénégambien ñoo ko soxla. fokk nat wees nañ ko dañoo bëgg a xam ñaari mbëri kan moo man sa morom parce que coow li bëri na kii naan maa man ñeene maa la man mu nekk combat boo xam ne nag combat bu neex lay doon. combat bi séntu nga ci xeex. combat bi xeex mun na cee am mbapat tamit mun na cee feeñ parce que lekket lekk mbëri mbapat la France day xeex day mbot kon combat bi foo ko natt ci diggante ñoom ñaar rek weesu na ko muy xeex di mbapat bi ak di li nga xam ne nii mooy dóor bi foo ko weesu rek na ko. jërëjëf séeréer bu naay di la jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal wa saare di leen di laat bu baax a baax si Gambia Gambia ngi nii nag ñun amuñu corona ñun dañuy def lu ñu neex. <laughs> neex. <laughs>